ñu ngi dellusiwaat ci seen émission bi nga xam ni mooy jàngale diine ji ñu digoon leen benn rubrique boo xam ni dañ ci jàngalu lu aju ci li ñu tuddee wàllu jàmm yàlla te mooy at-tahaara maanaam ñu bëggoon a wax ci wàllu làpp lu tax ñu bëgg cee wax mooy seetlu gi ñu seetlu ne Sénégal lu ëpp ci seeni waxtaan donte am na ñu koy def waaye bu ñu seetloo doon def micro trottoir di laaj nit ñi lan mooy faratay njàpp am na ñoo xam ne xamuñu ko lan mooy sunna yi xamuñu ko lan mooy ngëneel yi xamuñu ko sangu seet na ca naka noonu julli it bi ñu seetloo loolu nag la ñu wax nii e, nit ñi comme amuñu jot dem di jàngi ñun ñu ne daal dañu bëgg képp koo xam ne abonné nga ci sit bi incha allahu booy topp cours yi nga xam ne danañ ko ci def yàlla mën na la jàppale non seulement waxuma yow mais say doom sax mën nga fexe ba ñu jàng ci li nga xam ne moom mooy seen diine te incha allah loolu lañ ci jublu ñu ñaan yàlla rek yàlla nañu ci yàlla defal tawfiix yàlla nañu ci yàlla defal sunu yéenee ba mottalil ñu ko yàlla nañu ko yàlla defal kon bu ko defee tey ñu bugg a ubbi rek def introduction ci wàllu làpp maanaam bu ñu nee dafa am ñaar xam nga dañuy wax ne an nazafa ak tahaara bu ñu ne an nazafatu mooy set ci wolof set set nag sangu set sangu nit mën nga jël saabu sangu su boobaa dañu wax ne set na sa yaram set na waaye yaram mën na set ba noppi fekk na laabul looloo tax ñu bugg indi nag leeral la nit ñi lan mooy ab tahaara lan mooy laab ak lan mooy set l'islaam dafa am gëdd walla dafa am importance bu mu jox laab xam nga lu tax ñu jox ko importance boobu mooy jàmm yàlla muy julli mu gën a màgg ci jàmm jull jàmm yàlla yi li ñu tuddee tawaaf ak ya ca aju jàng alquran dugg ci jàkka ji yooyu noonu bu fekkee amuloo laab dañ la koy moytu la ndëkkuloo c'est-à-dire bu fekkee ne danga am am ba dañ lay tere nga dugg sax ci jàkka toog fa ni dangay julli bu ne danga am janaaba feeg sang amuloo feeg laabuloo dañ lay tere nga jël alquran téye ko julli doo ko man fekk sang wuloo beneen bi ci des mooy bu fekkee ne sax amuloo janaaba waaye amuloo laab doo mën a julli kon moo tax ñu bëgg a indi nag laab lan lay firi bu ko defee incha allahu ñu ñëw ci yeneen i jataay boo xam ni dinañ indi lan mooy fara lan mooy njàpp ci boppam aaya yi ci wax ñu jël di ko jël par ndànk ban ko rek def gaawtu kon dañuy njëkkee rek li ñu tuddee ahamiyatu taharati fi l islaam maanaam importance su laab ci lislaam bi ci jiitu mooy inaayatul islaami bi tahaara maanaam l'islaam gëdd wala yitte bi nga xam ne l'islaam jox na ko al tahaara boo demee ci alquran yàlla subhaanahu wa taala moom la yàlla di waxal ci mu woote te ki nga xam ne moom la yàlla wax ne na woote muy sayduna muhammad dafa am lu ko yàlla wax ci alquran te mooy sóoratu mudassir yàlla dafa wax ne wa siyaabaka fatahir maanaam yére yi nga sol na nga fexe bu mu laab seyduna muhammad it waxaat loolu nga xam ne yàlla wax na ko ci alquran yonent bi sallallahu alayhi wa moom mu indi ko ci xadis moo tax mu wax ni attahuuru wala attuhuuru chatrul imaani maanaam laab genn wàllu ngëm yàlla la te ñetteel bi walla ñaareel bi kon loolu mooy importance walla njëriñ walla yitte bi nga xam ne laab am na ko bi ci jiitu wax na ni yàlla ci boppam moo wax ni wa thiyaabaka fatahhir maanaam sa yére yi nga xam ne moom ngay sol war ci julli war ci jaamu yàlla mu ne na nga fexe ba mu laab kon ndekete laab alquran digle na ko beneen bi ci des mooy ab tahu ab tuhuuru yonent bi nee na ab tuhuuru laab chatrul imaani mooy génn wàllu ngëm yàlla ak ngëm ni mu foore kon loolu mooy inaaya bi nga xam ni eh, l'islam jox na ko ci ab tahaara ñaareelu point bi mooy mahabatullahi subhanahu wa taala lil mutatahirin yàlla cofeel gi mu am ci ñi nga xam ne dañuy laab kon li nga ciy déggee mooy ndekkee yàlla bëgg na képp ku laab rek yàlla bëgg na sopp na la qaala taala boo demee ci suratul baqara aaya 222 yàlla subhanahu wa taala mooy wax ni inna allaha yuhibu tawabina wa yuhibu almutatahirin yàlla nee na yàlla bëgg na ñi tuub waaye bëgg na ñi nga xam ne ñooy almutatahirina mooy ñi nga xam ne ñoo laablu yàlla ñu yàlla boole ci ñooñu ñetteel bi mooy yàlla subhaanahu wa taala mu ngi tagg mu ngi tagg alal mutatahirin qaala subhaanahu wa taala fiihi rijalun yuhibbuuna an yatatahharu ca suratu tawba aya 108 yàlla wax ne am na cay góor ñoo xam ne dañu bëgg yuhibbuuna dañu bëgg an yatatahharu lablu wallahu yàlla ci boppam nag yuhibbu dafa bëgg almutatahirina yi nga xam ne ñooy lablu yal na nu yàlla boole ci ñooñu kon loolu mooy premier point bi nga xam ne moom lañ bëggoon a mooy importance bi nga xam ni laab am na ko ci alquran sayduna muhammad ñëwi di jàngalewaat ko kon ñaareelu point bi mooy taarifu tahaara wa aqsaamuha te mooy buñ doon laaj lan mooy laab ci langue arab ak lan mooy laab ci istilaaha maanaam ci sharia ataharatu laab lugadan ci lang arab mooy annadaafatu min al adnaasi wal awsaaxi te mooy nga fexe ba laab set ci lépp loo xam ne mooy salte wala tilim loolu mooy atahaara linguistiquement loolu lay tekki waaye boo jëlee baat bi nag yóbbu ko ci atahaaratu fi sharci maanaam laab ci wàllu sharia te mooy raful xadasi wa ma fi maanaahu wa zawalul xabasi te mooy ab toj wala loo xam ne moo nekkoon ci nit ki loo xam ne moo la terewoon a jaamu yàlla loola nag la koy yëkkati ba nga mën a jaamu ji yàlla loolu la ñu tudde ab tahaara ci sharia te walla loo xam ne dafa nekkoon ci yére bi ñu fexe ba loolu ñu sellal ko ñu laabal ko te loolu exemple biñ ciy joxe xool nga yére bu fekkee ne jigéen moom la ñu jox exemple dafa amoon yére boo xam ne daf ko sol wala sër wala góor ànd ak soxnaam tubéy bi mu soloon man ni yu bi spermobile taq ci yére bi ndax soxna si dem jël ko fóot kook saabu xam nga set na waaye taxul bu ko solee julli julli gi du baax xam nga lu tax mooy set na waaye laabul kon lan la war a def mooy dafa war a dem laab jël del yére boobu nga xam ne moom la soloon te mu am sperme bi takk ci maanaam maniyu bi moom lay jël yóbbu ko xooj ko ci ndox fóot ko ak ndox bu amul benn e, soppeeku soppeeku danañ ci ñëw bu ko defee ndox moomu bu ko ko fóotee bu paree nag mën na ko fóot ak saabu su boobaa ndox euh, yére boobu dana nekk yére boo xam ne yére bu laab la laab na ba pare boole set na kon loolu lay tekki ci wàllu sharia kon nag bu ma ñëwee kon léegi wax nañ la leng ci làng lan lay taxaara di tekki laab li muy tekki kon bu ñu ne laab ci làng arab rek mooy an mooy set ci ci ci salteeg tilim waaye boo delloo nag ci sharia li muy tekki mooy toj maanaam koo xam ne dafa am lu nekkoon ci moom lu mel ni mani yu wala loo xam ne moo ko teree mën a julli loolu nag mënu ko def feeg dindiwu ko ba am lu mu def lu ko mën a tax mu mën a julli wala mu mën a wër kaaba gi ci aju loolu moom la ñu tuddee at-taharatu la boobu nag buñ ñëwee ci ci diine fa tahaaratu tutlaqu yi maanayni dafa am ñaari maana dafa am lu ñu tuddee tahaara boo xam ni zawaadul xabasi wa huwa an najasatu maanaam ñu fexe ba dindi sobe ci place boo xam ne dafa fa nekk te buñ koy wax mooy te maanaa liñ ci jublu mooy wal maqsuudu minhu tahaaratul badani wa bi wal makaan dafa am lu ñu tuddee laabu xabas ci arab maanaam laab boo xam ni dafay nekk ci yaramu nit ki wala mu nekk ci yére bi mu sol wala place bi mu war a jullee danaa joxe exemple maanaam ku góor ki ànd naag soxnaam wala soxna si ànd gis na réglam mais deretu règle bi taq na ci benn yére xool nga bu xamee place bi yére bi nekk maanaam maniyu bi walla deret bi bu xamee fu mu nekk mën na jël partie boobu rek mu um- ut ndox raxas maanaam fóot ko fóot ko ak ndox mu set kon su boobaa yére boobu mën na ko julle après walla tamit mu takk ci yaramam takk boobu mu takk ci yaramam mun na dem raxas ko ak ndox mu set bu amul saabu amul dara su boobaa euh, place boobu nga takkoon dafay set wala place bi nga xam ne sijaada ba nga xam ne moom lay jullee mu takk ci mu xam ba mun na dem raxas ko bu fekkee na xamul nag da jël yére bi yëpp nga xooj ko fóot ko li ma bëgg a wax mooy buy boo xamee place bi nga xam ne moom la sobe si nekk ci yére bi palaat boobu mun nga ko fóot noonu rek waaye du am saabu boo ko xamul nag yére bi yëpp bu dee bassan bi nga julee kasaalik bu dee ne sa yaram nga xam parate bi nga xam ne ci la taq taq-taq ba mën nga dem rek raxas ko waaye nag bu fekkee ne nit ki dafa génnee maniyu xam nga génnee nga maniyu bi mais taqul ci sa yaram su boobaa nag lii tax nga mën a julli il faut nga dem sangu farata loolu it dinañ ci àlla dinañ ci ñëw kon boobu mooy bi nga xam ne mooy li ñu tuddee taxaaratul xadas te mooy laabu xabas te mooy benn mu nekk sa yaram nga war ko raxas wala mu nekk ci yére bi ngay sol nga war ko fóot wala place bi nga xam ne ci ngay julee nga war ko moom it nettoyer te mooy nga war ko raxas kon boobu mooy njëkk ci laab laabu ñaareel bi mooy li ñu tuddee euh, tahaaratul xadas mooy laabu te mooy laabu xadas buñ koy wax booy benn nit ki jàpp bu fekkee njàppal moo ko war wala mu sangu farata bu fekkee ne sangu farata moo ko war dinaa expliquer maanaam dafa am li ñu tuddee laabu xadas te mooy dafa am lu xew ci nit ki ba kooku li xew ci moom permettre ko mu mën a ja julli masalan nit ki tuur na ndox xam nga tuur ndox moomu pour mu mën a julli comme ndox a ngi il faut mu dem jàpp kooku njàpp mooy farataam bu fekkee ne nag amul ndox mu bàyyi mu bàyyi bu fekkee amul ndox su boobaa may nañ ko beneen laab te mooy mu tiim kooku it ci ñëw waaye bu fekkee nit ki dafa ànd ak soxnaam xool nga ànd ak boobu mu ànd ak soxnaam li mën a tax ma mu julli fokk mu dem sangu ji kon sangu bi eh, xool nga bu dee bu dee bu ndaw bi maanaam tuur nga ndox dem nga eh, toilette yooyu wala nelaw nga nelaw bu bu xóot lool su boobaa da nga war a dem jàppi waaye nag bu fekkee ne dag man yu moo gën ci yow kon da ngay dem sangu ji te mooy li ñu tuddee sangu janaaba kooku danañ ci ñëw ñu ne nag su fekkee ne laab boobu ñu la wax mooy ñaari laab yooyu am na ci koo xam ni li mu war a def mooy mu jàpp te mooy sobe maanaam kii nit ki li ko dal mënula julli feeg loolu re yëkkatiwu ko maanaam dindi ko ci moom ba pare dindi gi nag mooy benn mu dem jàpp bu fekkee ne njàpp ko war wala mu dem sangu farata bu fekkee sangu farata moo ko war naka noonu it la des nag mooy nit ki jullit bu nekk mën nga saa yoo buggee julli nga dem jàpp bu la neexee waaye boo xasee jàpp feek njàpp mi tojul mën nga continuer di ci julli dinañ ci ñëwit ci ki nga xam ni moo am feebaru tur ndox mooy salesul bawli ñooñu dinañ ci ñëw pour ndax am na ñoo xam ne loolu mooy seen feebar wala ñoo xam ne seen feebar mooy fu ñu toog dañuy gaaw a génne ngelaw loolu mu nekk ci ay feebar ci ñoom nan lañ war a jullee kon yooyu yëpp incha allah dinañ ci ñëw incha allah bu ko defee nag laab boobu nag mënoon nañu ñëw nag def ko ci ay parti parti bu njëkk bi dafa am li ñu tuddee taharatul baatinati laab xam nga baleel benn laab rek laa la waxoon laab boobu yi tamit ñu xaaj ko ñaari xaaj te mooy laabu xadas ak laabu xabas ci biir laab yi nag dafa am li ñu tuddee taharatul boo xam ne mooy taharatul baatina maanaam nit ki nga laab ci sa baatin maanaam sa intérieur te buñ koy wax ne mooy taxaratul bi te mooy nga fexe ba sa xol nga laabal ko xam nga xool kenn du ko laabal ak saabe saabu wala njàmpe liñ koy laabalee mooy nga fexe laabal ko ci li ñu tuddee bokkaale ashirk te mooy bokkaale yàlla nga fexe boo fóot sa xol ba li ñu tuddee bokkaale dootu ci nekk waaye li ñu tuddee eh, li ñuy tuddee kii dootu ci nekk te mooy bañal rëy yu mel noonu yépp nga fexe-fexe boo jëlee ko ci sa ci sa bopp kon loolu la ñu tuddee taharatul baatina te mooy nit ki fexe boo sobe bi nga xam ne moo nekk ci xolu nit xam nga am na sobe bi nga xam ne moom la ndox di raxas mooy nit ki war a sangu wala mu war a jàpp waaye am na beneen boo xam ne mu ngi ci biir xolu nit ki kooku nag li koy def nekkul ci nga dem di ko sang te mooy li koy def te mooy nga tuub ci say bakkaar waaw te mooy nga am ngëm gu wér tuub ci say bakkaar ndax it sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom la yàlla waxoon ni innamal mushrikuuna najisun maanaam ñiy bokkaale ak yàlla ay sobe lañ ñoom ci seen bopp innamal mushrikuuna najasun suratu tawba aya 28 jëlee nañ ci xadis boo xam ne abi hurayrata radiallahu anhu moo ko solo mu wax ni innal mu'mina laa yajnusu laa yo laa yajannusu mu ne naa innal mu'mina naka jullit mu ne julli ci boppam laa yajnusu te mooy du am li ñu tuddee ji du du nekk sobe ab jullit du sobe waaye képp koo xam ne danga bokk ci musrikuuna yi dañ lay tuddee eh, li ñu da nekk sobe ñaareel bi ci laab yi mooy li ñu tuddee al taharatu hissiya maanaam laab boo xam ne laabu yëg-yëg la te mooy bi ñu doon wax léegi te mooy taxaara bi nga xam ne mooy taxaaratul xadas ak taxaaratul xabas léegi nag bu ñu ñëwee pour tëj buntu boobu ñu wax ne taxaaratu bi ñu doon wax mooy taxaaratul xadas buñ ko doon xool pour nit ki mën ko gën a comprendre dafa am lu ñu tuddee tahaaratul kubra am lu ñu tuddee tahaaratu suxra dafa am laab bu rëy bu mag te laab boobu li koy def mooy li ñu tuddee sangu farata am li ñu tuddee tahaaratu suxra mooy laab bu ndaw te mooy li koy def te mooy alwudu mooy njàpp ñetteel bi mooy tahaaratu badalun min huma laab bi nga xam ne mooy remplacer sangu bi <coughs> ngeen baal ñu laab bi nga xam ne mooy remplacer sangu bi remplacer njàpp bi huya mu te mooy tiim ndax nit dina toll foo xam ni du sangu du du jàpp li muy def mooy dafay tiim danañ ci ñëwi ci benn bu ci nekk beneen sa laab bi mooy li ñu tuddee taharatu min al xabasi te mooy laabu xabas laabu xabas nag moom it bu ñu ko doon xool mën nañ ko wax ne ñetti parti la am na boo xam ne taxaaratu xaslin mooy laab boo xam ne dangay raxas walla laab boo xam ne taxaaratu masxin loo xam ne da ngay masa am taal ñetteel bi mooy taxaaratu najjin laab boo xam ne da ngay wicc loolu yëpp incha allahu dinañu ci ñëw bu ko defee nag bu ñu xamee lan mooy laab yooyu ñu la wax te mooy laabu xadas ak laabu xabas te moom lañu bëgg nit ñi gën a xam xool nga laabu xadas mooy benn nga jàpp wala nga tiim wala nga sangu laabu xabas dafay aju ci nit ki benn nga raxas ko lu ñuy raxas wala loo xam ne dañu koy wicc maanaam place bi nga xam ne ci nga war a jullee wala yére bi nga xam ne moom ngay sol wala mu takk ci sa yaram su boobaa boo xamee fi mu takk rek da nga koy raxas boo xamee ci mbubb mi fi mu ci nekk pala parti boobu ngay jël rek raxas ko su boobaa yére boobu boo ko solee mën na mën nga cee julli kon bu ko defee li moo doon première partie bi ci li nga xam ne moom la ñu bëggoon a def introduction ci wàllu làpp bu ko defee beneen eh, yoon incha allahu bu ñu ñëwee nag ñu commencé ci lan mooy eh, gannaaw bi ñu xamee làpp bu ko defee ñu dugg ci beneen point bi nga xam ne mooy li ñu tuddee njàpp